tey jii ñëw nañ doon wër di xool école yi nga xam ne doon nañ ko tabax ci àgg nga xam ne léegi li ci des rek daloo moo ci des daloo boobu nag euh, xam naa ne pour ñu def ko it xam naa xëy table banc yi rek ci yenn côté moom moo manqué waaye yaakaar naa ne loolu du yàgg ndaxte day di ñaari chapitre yu bokkut ki yore construction bi dafa bokkut ak ki yore équipement bi mais yaakaar naa loolu yëpp euh, ça va se régler tey nag dem nañ kon ci Bangaaj jël nañ fa ñaari salle de classe yu bees yoo xam ne yii réceptionné nañ ko dem nañ it euh, KR Mbaye ñeenti salle de classe yi fa doon tabax moom tamit àgg na ñëw nañ it Daaru Karim ci lañ mujje moom it ñeenti salle de classe yi ñu fi doon def réceptionné nañ ko kon mën na ni classe yooyu tey jii dana ñëw dimbale population bi ci seen bëgg-bëgg ci njàng mi nga xam ne xam nañ ne àdduna njàng moo ko yor ci rawante bi ci njàng mi la ne kon nag loolu lu ñu rafetu la di di santi nag état parce que li ñuy def lépp nag dañoo wax nañ nañ jàpp ne BCI moo ànd ak ñun ci moom li ci ëpp moom mooy moom waaye nag li muy def ci ci ñun la koy jaare kon nag tey ji daal am nañ mbégte bu rëy ak kontaante bu rëy di ñaani nag nag euh, ñu gën ñoo jàppale pour que njàng mi law fépp ndaxte euh, commune bi yemul ci Touba Touba ab dëkk la ci mooy mooy épicentre bi waaye nag li ko wër juróom ñetti fukki dëkk lu topp mu ngi ci ginnaaw bokk toujours ci commune bi ñoo ñëpp dañoo soxlaa jàng dañoo soxlaa naan dañoo soxla électricité dañoo soxla leneen te ginnaaw ñun dañuy fi teg pour ñu ñu euh, saytu mbirum mbirum mbir mbirum communauté bi kon nag loolu moom dañu jàpp ne loolu mooy sunu combat di sant nag ñëpp ñu ngi jàppale partenaires yi ak fu ñu mun di jóge ñun école yi nga xam ne moom la ñuy respitionné mooy yi nga xam ne yu état la ndax euh, investissement bi foofu la jógee léegi nag gis nañ ne njàng mi li ci ëpp solo ci ci Touba njàngum diine la njàngumu arab bi njàngum alxuraan bi loolu tamit am na ñoo xam ne ñu ngi ciy yëngu waaye mooy xalaat sax woote daje boo xam ne bii dañuy seet njàng moom nu ñu ko mën a jëlee en charge nan la ci commune mën a jàppee ak ñi nga xam ne ñoo ci nekk di ci yëngu tey jii nañ leen nañ leen gën a mën a accompagner ba seen xam-xam gën a bënn maanaam seen liggéey gën a set loolu tamit bu ko defee ña cay jàngee mën caa jëlee lu am solo parce que jàng dafa doon loo xam ne kenn du ko def ci làmbatu nit kiy jàngale li muy jàngale da ko war a xam li nga maîtriser wut mënoo ko joxe muy maître tubaab muy keneen. donc ci itamit nag bu fekkee nit defu ñëw rek ci ab ko ñit tàmbalee jàngale xamuñ fu mu jógee xamuñu lu mu mën xamuñu lu munut waajur yi gis amul fenn fu mu dugal doom mu jël rek dugal ko fi loolu tamit ay risque la defe naa yooyu yëpp nag lu ñu war la xool ko settantal ko ndax ñun sunu raison d'être mooy dañoo war a taxaw sunu progéniteurs yi kon yi nga xam ne ñoom ñoom lañu ñu suñu borom boole ba bu ëllëgee ñu màgg doon ay citoyens yoo xam ni danañ jël seeni i responsabilité xam li ñu war a xam. ci coopération décentralisée ñun de doon nañ wax ne. war nañoo seet nu ñu mun a amee ay partenaires yoo xam ne danañu gunge ci lu mel ni ay car su ko defee suñu waree subventionné lu mel ni transport bi ñu def ko ndax bu dul euh, ak Missirah ak euh, Daaru Karim ak euh, Tindodi yooyu yëpp ay école la yoo xam ne yi dañuy désagrégé population scolarisable bu Touba waaye ñun jàpp nañ ne même lu flow bi jëm Mbàkke moo gën amati solo parce que xale yi lu at mi daanaka Mbàkke la jëm